bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di ñaax sunu bopp di ñaax sunu bokki jaame yàlla yépp nu fas yéene sàmmonteeg ndigalu sunu boroom yi di ko jooxe ni ko mu ko digal ni ko mu ko digalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ko noona te luñ ciy def ñu fexe ba mu mel na war a mel loolu nag la koy mooy luñ ci xamut lu nekk ñu dem xam lu ko ndigalu borom yooyu gannaaw pas-pasub nit ki bokk na ci bi ci gën a am solo muy julli bi nga xam ne ginu dajale fii genn la ca ca moom julli moomu nag dafa laaj waajtaay am na laytaay yu ñu koy lalal teg ko ca kaw ak yu ñuy muuraat ca kawam ñu séq ko moo tudd àtte yi ak charte ya ak ponk ya ak ya nga xam ne bu te duggee dee su ko tuddee te julli gu wér euh, li tax nag mu mat a waxtaane te di ko baril te bañ di topp xew-xewi jamono yi rek di dem ndax xew-xew day xewi te jaamu yàlla du xewi mukk li fekk nit a ngi dund mu defi nag biñ ci gën a taqool nag moo mat a gën a sonne moo gën a mat a sonne ndax moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu nit ki saabu ak ruuxam rotee ba ñi koy laaj di ko laaj li ñu koy jëkk laaj mooy sa diggante ak julli bu ëllëgee it moom lañuy ñuy a teg su ca jaam bi góorgóorloo kem kàttanam mënees na koo muñal yi ko des yëpp waaye su melut na war a mel dañuy tàmbali di seet te yàlla kum seet dana gis awalu ma yuxaasabu bihi al abdu yowma alqiyamati assalaa fa in saluxat saluxa saairu amali wa in fasadat fasada saairu amali moom la mujj dénkaane itam bi mu demee ba nga xam ne mi ngi wax làmmiñ wi tàmbalee damm suñu borom dañu fa wan ak niteem bokk na ci li mujj dénkaane as salaata as salaata mafuul nag bi bihi suñu ko baamoo ñaari yoon taxdir lay tekki mën naa tekki taxdir wala tanbih assalaata assalaata jullee ngi nii jullee ngi nii sàmm leen seen digganteeg julli fonk leen julli taxawee leen julli li feeg yéen koy man la ca dolli ko daal mooy képp ku leen yàlla booleel tam ne ci seeni yoxo na ngeen def seen kem kàttan ba bu ngeen layoo ëllëg it layoo ba du metti asalaata asalaata ma malakat aymanukum julli moomu nag laytaay yi nga xam ne daf koy jiitu mu topp ca ñu tudde ko julli gu wér ba cay jiitu mooy ab jullit loolu moom daanaka sax xawut a ak ñu ne ci biir jumaa waaye ah kay nga gis koo xam ne day am xaritub jullitam maslaa ma ëpp koo julli sa dugg sa jàkka ja kam àndal xam ne kii du ab jullit waaye maslaa mooy tax googu julli yàlla du ko limaale ak julli da bokk ba noppi mi ngi mel ne rek ku ñëw foo xam ne fii dañ fay fay nit ña weer fa la fayee nit ña seen weer dañ liggéey saa bu xëyee ñëw rek buub ba mu set fomp dem mi ngi def lu baax waaye nag bu ñuy fay duñ ko fay ndax turam nekku fa moo tax am na ci biir julli yoo xam ne ku ko jullee du wér ba ci jiitu mooy bañ doon ab ab jullit ni jullit yi waaye am na ci yoo xam ne nag li nit ki waroon a am ci julli gi daf ko koy yàqal daf ko koy xañ doonte ab jullit mën naa julli te julli ko du baax itam ci laa jëm si waaye am na ci yoo xam ne na ko koo ko doon defee daa wuutee ak na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam waaye bokk yi laytaay ji gën a am solo gannaaw bu nit ki doonee ab jullit mooy buy julli mu amuk laab ak laab laab mooy catug diine da gis ñu ne la booy raxas raxasool lii ak laa say yoxu set waaye diine moom li mu tuddee ak cat moo moom lay wax laab loolu nit ki raxasoo taxu ko mën a julli taxu ko mën a tawaaf bu fekkee ku nekk Makka al Mukarrama la taxu ko mën a jàng alxuraan it su jàpp su jarut ci jàpp gannaaw loola walla mu tiim déedéet moo tax bu ñu demee ci alxuraan danañ ca fekk laab doon ay xeet yu bari waaye ba ca jiitu daal mooy xool bu laab bu set wicc ci lu dul subhaanahu wa taala ñu ci war a fas soo demee ci suratul muddathir ay yëfa nga fa yoo xam ne tënku na tënk na dunduk jullit bi yépp ci lim war a def yonent bi la doon waxal sallallahu alayhi waaye mooy njiitul jullit yi ci moom lañuy roy mooy seen royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana daf ko ne yaa ayyuhal muddathir yow mii nga xam ne yow la ñu muur ak yaa ayyuhal muzammil qum fa anzir nelaw jeex na jógal wax ak nit ñi xamal leen liñ war a def ak li ñu wërta def ñu xàmmee leen ñoom ñaar suñ ko defee sa jaan wàcc na seen jaan wàcc suñ ko defut sa jaan wàcc na soo fa jógee nga naan kaay la dem te bañ dem te bañ a wax dem leen ma fekk leen fa rek wa rabbaka fa kabbir mu tënk jaamu yàlla yépp wa siyaabaka fa tahir am na ñu ko tekkee booy sol mbubb na doon mbubb mu gàtt ba tey ndax dañ cay moytu di dox di buubaale yeneen yu yoo xam ne doo xam lu mu doon war rijsa fahjur lépp loo xam ne dana tax boo ko tax bu la taxee wala nga tax ko booy julli du wér ci ñu moytu la bokk wala tamnun tastaksir bul defal nit kenn dara moo xam muy sa digganteeg yàlla wala sa digganteek boro sa boroom banaan xanaa war naa doy loo weesu weesu ko xeeb ko te yàlla nangu ko rek wala rabbika fasbir lu la waaye teg mu muñal ngir yàlla waaye bu dee baatu tahaara bi mu ci tudd ay xeet la am na ñoo xam ne bu ñu waree julli ji laab ga ñuy am soog caa mën a julli ci sangu lay jaar am yoo xam ne nag njàpp mu dem ba màggat ci teggin njàpp mu toj moo koy waral ak yi tënk njàpp mu toj yëpp waaye am na foofu bu fa nit demee it dafa war yóbbaale ndox donte sangu wut du sangu moo ko tax a dem ñu ngi koy jàngale naan na jël suuf walla bant ba noppi door jël ndox boo ko loolu day àtte yu sew sew yu sew sewaan yu tuuti yoo xam ne dara mënut caa day naagal ndax kat wanag ak i armel am na kuñ jàppe woon ku am xelam neexut mu àtte ci ab dëkkub lëm bu dee armel yi ma yi ma mujj tudd mën naa yóbbaale wanag dafa ñëw ci dëkk bi fekk ñuy sanc mu laaj leen ana fu jàkka ji di nekk ñu ne ko fee lañ ko waajal fu fajukaay bay nekk bu doon suñ jamono ñu ne ko fee lañ ko waajal fu jaba di nekk fee fu garaas bay nekk fee fu jàngukaay di nekk fee mu ne leen waaw fu ngeen waajal armeel yi ñu ne ko yow dof nga waxi dof ngay wax mooy leen kon naru leen a yàgg ci dëkk bi kon de naru leen a yàgg ci dëkk bi waaye wanag yàlla mi bind ba wax ne bi mu bindee nit da koo xool ba mu mel na mu ko bëggee fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi fa qaacu lahu saajidin lu mu booleeg nit rek nit du toll nen ba desu ci war a mën a waxtaan ak moom ca loola ndax yàllaa ko booleeg moom bind koog moom. moo tax ñi nga xam ne dañoo mënoon gan dëgg-dëgg su gan ñëwee bala ñu ko indi ndox dañ koy njëkk a wan wanag wa ba noppi ndax mën naa am nu mu ñëwee noo xam ne foofa dong dong la gën a foofa la gën a yittewoo ci lañ koy jox lépp kon boog. ab jullit balaa jëm ci julli na dem ca wane ko ba ñëw ndox maa nga fa bu bëggee sangu sa bu fekkee daa war a sangu mu sangu fa su fa defee leneen ba war a ba war a laal ndox it mu laal fa ndox soog a génn jàpp soo a jëm ci julli gi julli moo toll noonu waaye bokk yi am na si ñooñ am nañ tuuti assuré yi ba soo leen dox leen rek dana leen wóor na yoruñu am jàpp wala leneen sax war na leen waaye rëy mooy tax ñu jóg taxawal ñi muy jiite nag te seenu xam aggut ci ba xam daa war a jàpp wala wërta jàpp ñoom seenu julli mën naa wér waaye moom nag mooy yanu lu diis gan ndax mënoon na ne may leen ma ma dem wàcc dikk ñam koy wax ña ko ko wax du dem waaju du leen ko yàqal lu am solo la waaye am na ñoo nit suñ ne ay dañuy daal di fab seen loxo rek teg ci kaw tàpp bi kaw moket bi mel ni kuy tiim ndekete yow ab tàppi munta tiim moket munta tiim su fekkee daal mënta laal ndox ndax yay tee mu mën a jaar ci ndox door a ñëw julli si na dem wuti suuf ñëw bokk wala mu dem ci ci biti tiim bu fekkee mooy jiite ñu tàmbalee li xaam nga xam ne buy agsi rek fekk li xam gi daanu ndax mook julli tiim ak julli ñooy taqaloo jokkale ko julli gi ci sart yi la bokk yi tax mu baax moo tax suñu boroom ne waxuñu laab ni ngir julli ci rek mu jaar ci sangu wala jaar ci jàpp waaye bokk yi li nekk ci laab cib jullit dem julli yi am na ca solo lool mën na mën na ca ëpp solo waaye bu ko tàmmee ba tàmm ko li ñuy wax li lay romb ki lay romb ak xet di la xeeñ moom duutu sa bokk ndax foo ko fekk day set wicc am na boroom xam-xam yu gëstu ne xale yu ndaw yi nga xam ne dañuy nàmp ku ne mën na leen jël ndax duñu am xat dara taqagu leen waaye ku taqagu laabe dana dem ba dara duutu ko taq mag ñi nga xam ne saa soo leen gisee ña ko jàpp suñ defee dara yit dañuy daal di gaaw jàpp toogaat dañuy mujj dañuy mujj li ñuy xeeñ kenn du xam lu muy lu mu doon ci li ñuy xeeñ ñoom xet gu teey li ko la mooy taqoo akuk laab moo tax yàlla nee na woon fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu mbooloo mii ci jàkka ji njàkkas yi nga yàlla rek tax ñu taxawal ko da fi gis ñoo xam ne ñi bu sañoon fu toll dañuy taqakub laag laab set wicc ñoo yey nag ndax yàlla moo ñoo ñaa ànd àndut ak ñoom yam ca waaye daf leen a bëggal boppam te yàlla bokk yi mooy ki nga xam ne bëgg ko yëmut ak dara waaye ku mu bëggal boppam bi loolu sax moo mat a wut fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin daane soo gisee mu joxañ leen laab door a jëm ci jaamu yàlla doonut ne daf leen a bëgg a sonal waaye lim leen bëggal mooy cat gu tàmbalee fii jëm ëllëg ndax bu ëllëgee mu ne la jërëjëf nga ne ko de jërëjëf ka yaa ko yaayoo maa yuridu allahu li yajala alaykum min xarajin walakin yuridu li yutahirakum wa li yutima nicmatahu alaykum laallakum tashkurun moo tax seytaane ci liggéeyam bu rëy léeg dugal ci xelam nit ndax maa ngi ko njàpp waaw wala déet mu dëkk itam xelam te ci ibnu ashir ashakku wa shakku fi lxadasi kufru man kafar dëkk sikk sàkk ba xam maa ngi comme jàppam déet day yàqum jàpp si moom ci boppam donte yaa ngi soog a jàpp ne jàpp ba noppi la seet ba xam ndax jàpp mi baax na wala baaxul sax dama waat sakkantuma sangu mi nga xam ne ci njàpp njàpp ci kawam lay tege door a baax bokk suñ demee ba ci jigéen ñi la gën a bare dana gis ñoo xam ne dana rus seen bisub ceet diw ko ga ñu leen di diw taax leen ko doo xam ab dóom la doo xam pëndu gattax xattax la ñu diw seen tuñ ya diw seen gët ya waaw xamees na ku ku ñuy ngénte mu bañ a julli waaye ku ñu jiital lu dox diggante ak bu jàpp jotee mu dem jàpp julli ci bisu cër gi waaye bu munta ñàkk ba munta ñàkk am na si ñooñu sax dañuy muuru ba jekk nirub jullit lool waaye bis boobu moom suñ mënta ñàkk jullit dañuy tiim su ko defee nag dañ tàmbalee wàññi bis boobu ñu leen doon céetale ba ba ñuy doon xubudu ba xam ñaata jullee fi baax ndax tegale bu njëkk ba jub rek yi nga des yëpp topp ñu gis ñoo xam ne seen borom ko def yi bàyyi ko ñu am juróom benn fukki at ñu yebal ku leen jàngal nu ñuy jàppeek nu ñuy sangoo seet ak ajjuma ju nekk loolu it jullit yi war nañ cee taxaw wóor a wóor a wóor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon jàpp moo gën a wóor tiim ndax ku jàpp nam war a jàppee ca ndox ma ca fa mu toog di jàpp ak pas-pas ba mu am ak yéene ji saa bu noppee mu yëg ko wala bañ koo yëg waaye rëcc la ci yi mu doon def te yëgu ko day génn ci moom ba su ko mënoon a laal danaan mi ngi nit génn ci samay wet dem man tawaddaa fa axsana alwudua summa fa axsana alwudua xarajat xataayaahu min jasadihi xata taxruja min taxti adfaari moo tax sëriñ bi li muy jàngale laab daf ne laab jaare ci sangu wala wala jàpp atte bi julli am ci ab jullit la am ab jullit bu xëy xëy ne julli bokkatul ci lislaam danañ ko muñal ab diir ñetti fan la wax saa su nañu ne ko saa yi xanaa da juum bu juumut ñu tàggale boppam ak baatam jullit bu ko dul ci lislaam dañ ko naan ah, bari kaf rek ñetti fan loolu suñ suñ bee ko bind ci ay téeréem yu wuute waalam bi ann salawaati alxamsa faridatun qataan wuqiita labsa bi dikri wa sunnati wal ijmaaci wa man yakun minha ala imtinaaci جحدا لها فهو كالمرتد في الحكم يستتاب جيم العبد فإن يتب يترك وإن لم يتب تقتلوه بالسيف سريعة سريعة النبي بالسيف سريعة النبي loolu mbirum sëñ bee bokkut ak nag koo xam ne daane julli moom ci lislaam la bokk waaw waaye nag kooku duñ ko muñal dara dañuy xaar ba xam miti la ko wax dañuy xaar ba xam dana julli tusubaaram déet rek su julli tusubaar sëriñ bi ne nañ tàggale boppam baatam buñ ko yóbboo fa ñuy tàggale boppam baatam wax walaw tanaddama wa qaala afaalu li xawfi mahlakin fa laysa yuqbalu te bokk yi kooku sëriñ bi nee na bu ko ñi gën di jullee wala yali salaatu salaatahu du fadli li kay yakuna zaajiran lil misli moo tax keroog ñu doon wax ne koo xam ne daa bokk ci ñuy xeex daara yi bu ko kenn jullee loolu du samay wax alquran la ña taxoon aaya ba wàcc ci jullit lañ bokkoon waaye dañ doon wax ca kaw di def ci suuf am ci kook sallallahu alayhi wa sallam daa summi mbubbam ne nañ ko ko dencaale yàlla ne ko du noonu nag waxuma la di summi sa mbubb di ko ko yónnee ñu di ko dencaale waaye fañ koy jullee sax bu ko fekkeeti ñu mel na ñoom ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون kon ñi xeex daal nañ tegg seen tànk bokk yi ku weddi julli noonu lañ koy def sëñ bee ko bind waaye def na laabit attab julli la yor inna taharata ladayna wajabat dikran wa sunnatan wa ijmaan sabat taarikuha bi gayri udrin aw qila yuqtalu xaddan duna kufrin fa aqila idi salaatu la tatimu abada illa biha wujubuha qad wujubuha qad bada loo xam ne ku tudd lu ñuy wax togg di lim la muy togg te boolewu ca boolewu ca ndox leneen la bëgg a def waaye toggagul noonu la ak laab mel ci julli jàpp nag moo ca gën jàpp moo gën a wër tiim la boroom xam-xam ba di mag tontu woon moo ca nekk dañ ko ne jàpp ak tiim lu ci gën mu teg fële càkkos soo xam ne mu gisee soo xam ne xaalis si nekk ne dem leen tiim ko te ñëw ñu dem tiim ko te diw dama jàpp ko te andil ma ko fi kooku jël ko andil ko mu ne ko yéen ñaar yi ci kenn ko kii ne dama tiim kii ne dama jàpp mu ne jàpp nag moo gën tiim moo tax mu bind ci beneen téeram ne inna inna taharata ladayhim taxsulu bil maai mutlaqan ala ma nuqilu wa huwa alladi salima min tagayuri fi taamihi wal lawni maa riixin duri wa haythuma bi taahirin taxayara fa taahirun huwa walan yutahira laab gi may wax nag nee na ndox moo koy def ndox moo xam ne doo ko xool mukk ba ne daa bula wala dafa wert doo ko guux mukk ba ne daa saf suukar wala daa saf xorom waaye doo ko def ci say wakkan booy salaxandiku it na daa xeeñ laj ko lañ wala dafa xeeñ pentiir ndoxum ndox daal moo tax waroom xam-xam yi war nañu gëstu bu baax a baax ci ndox yi xew léegi rawati nag ndox yi nga xam ne dañuy tàggale ndox ma ak na meloon na ko yàlla bindee woon def ca ba mu neex neex a naan lool loolu it waroom xam-xam war nañ ci jindi ba xam mat naa mën naa laab laabal waaw wala déet bu laabee it ndax mën naa laabal waaw wala déet ak yañ cay def yan la moo tax mu ne bu ndox mi soppikoo ci benn ci yooyu mu wax daay xeeñ nangam daa mel nangam dafa saf nangam nañ xool la muy xeeñ ak la muy saf ak nam mel ba xam su dee loo xam ne may su ko laab ba laj ko la laj ko dañ koy tuuroo ci lu dara kon ndox ma ma bu la neexee ko soxlaa wàññi dara mën nga ko toggee waaye mënoo caa jàpp mënoo caa sangu bokk yi ndox mi sang mi jàpp mooy sangu mooy sang waaye su xasee ba mel wenn melokaan wala mu sax dara walla mu xeeñ dara moom ci misaal ndox mu sax suukar kuy togg laax day yomb ci moom lool ndax duutu suukaraat wala muy ataaya kon laab li julli di ñu toll lépp ba bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ko jot yàlla da ko wool boppam yónniwu ci kenn daf ne nañ jaar ci laab door caa dem am na ñu ko néewal solo fuñ ne ay ci leen ñu jóg taxaw wala sax ñu tiim waaye ñi nga xam ne sëñ bi lañ topp moom sëñ bi ne laysa laysa lahu bi dalika tayammumi yowma alqiyamati siwa jahannami aadana allahu min alxusraani wa sharri iblisa mada al azmaani moo tax ñi ànd ak sëriñ bi sëriñ bi wàccoon ak ñoom yoon wuñ dog ñoo ko dogal seen bopp waaye suñu bëggoo suñu bëggee layoog moom ëllëg ci nii ñu ko toppee damaa neex rek dama ko bëgg lam joxañ amoo ci soxla ak lu sew sew su ëllëgee ka ngay layool da koy gis ka ngay layool da ngeen tase tribunal waaye ka ngay layool su ñëw dañ koy dàq ka dàqaat kon dawaa ir yëpp muy daa ir yeeg diwaan yëpp nañ ci jàngale mbindum sëriñ bi rawaati nag la ca aju si teg yàlla bayiwu ca dara yàlla na yàlla dafa dëgg topp te musaluñu seytaane ak pexe yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin